arrêté ki nga xam ne mooy buur Gédé Macky Sall ma ngay wax ak opposition bi di leen xam ne li ñu koy xarab yëpp moom gisu ko li mu gis mooy li nekk ci kanam ñu seeti président Macky Sall mieux Sall soo àllee jaboon Sall ari dama ne jërëjëf yéen waa Malicounda ndax sama liggéey yéen a ngi koy rafetlu te kontaan naa ci li nga xam ne mooy doomu Malicounda yi saa ma yàlla may occasion damay wax ak ñi nga xam ne mooy sama askan une fois encore réew mi bëri na ay coow nit ñaa ngi coow gauche ñu ngi coow droite te loolu gisuma ci lam solo mais bu fekkee ne def naa lu baax nañ ko marche ne président de la république Macky Sall def na lu baax def na ay jéego yu baax dañ koy marshal pour sargal ko ci li nga xam ne moom la ñu bëgg mais man mandat bi ma nekk nii nekkuma ko pour sama bopp ak suma parti dama koy def parce que yàgg-yàgg dama fiy jógee kenan mooy toog li ma eggalee li nga ne moom mooy ay projet Ablaye Wade mais projet Ablaye Wade yi ma eggalee bu leen fàtte ne ma ak Ablaye Wade ñoo fi nekkoon am na loo xam ne ko defoon ci xelam ay autoroute à péage ak yu bëri yoo xam ne doo leen ko mën a xam parce que ku nekk premier ministre président Macky Abdoulaye Wade c'est parce que am nga ay xalaat yoo xam ne joxoon nga ko te xalaat yooyu ba ma koy jox ak ba mu koy def xëy na nekkatuma woon ci partem waaye loolu sama xel la woon moo tax tey loolu sama ko amal xam nga am na loo xam ne lu nekk doo ko mën a wax waaye am na ci ay projet yu bëri gars yi bu ñu toggee ci télé bi naan Macky Sall day eggal yi war a day tudd doomu jàmbur waaye nag nañu xalaat ne man mus naa nekk premier ministre te la ma daan wax ak président Ablaye Wade li ci bëri tey dama ko eggali parce que man maa ko sumboon ci ay kaddu moomu daal di koy jëf ci ay action moo tax suma ma dëggee gars yi naan réew mi doxul dañuy wax lu neex mais Sénégal maa ngi ko fekk muy raam te Sénégal ci tànk yi mu nekk nii ñu ngi waaxu te bu ñu waaxoo ba pare xam nga ku waaxu da ngay daw te boo dawee boo buggee raw def lu gën a raw daw da ngay naaw moo tax damay kontaan damay bég suma ma gisee population boo xam ne dañoo ànd ak man ci li nga xam ne mooy projet yi est-ce que mos ngeen gis dëkk boo xam ne dafa am toolu courant amul toolu courant maa ko fi def parce que boo demee ba waaloo lu mot ay téeméeri hectare laa jël def ko énergie solaire baykat bi dootul amati facture ndax ci li nga xam ne moom mooy jaww ji te yàlla ko moom yàlla suñu borom moom moom li nga xam ne mooy jaww ji ñu daal di jël ci jaww ji daal di koy ŋàcc def ko ay énergie solaire baykat bi dootul amati facture courant day xëcc li nga xam ne mooy jaww ji di ci pompe ndox muy génn muy arrosé te du fay dara dama ne ku ne Sénégal dafay raam yaa ngi wax loo neex ndax bi ma yoree réew mi dama ko fekkoon muy ram ma daal koy tëtee mu jóg taxaw ndax xale buy raam danga koy jàngal nu muy doxee sama première at dama jàngal Sénégal nu muy doxee deuxième at bi moon ko nu ñuy waaxoo troisième at bi moon ko nu ñuy gaawantoo maa ngi nekk ci quatrième at bi dama ko wane ñu muy naawee gis nga gars yi san lameen nañ yor di wax waaye jëf bu amee ñu wane ku nekk li nga jëf di nga xam ne na liggéey naa war a liggéeyuma dama ne ma bantuwaat ko ngeen dégg ko dama ne ku ne dëkk la boo xam ne da ngay yaa ngi wax loolu neex actuellement dëkk baa ngi waaxu te bu jógee ci waaxu dafay accéléré te bu jógee ci accéléré dafay naaw waaw waaw ah wow wow ah wow wow wow wow wow wow wow wow waaw raaf waaw naaw raaf waaw naaw waaw waaw naaw naaw. raam. waaw. naaw. raam. waaw. waaw. waaw. waaw. waaw.